aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain mbokk yi imam Mass Dieye ci émission yi nga xam ni moom la fiy taxawee fii ci kër gi Wadduha muy waxtaanu fajar gi nga xam ne mooy am fajar gu ne bu jeudi matin jëm si ak émission bi nga xam ne dañ tuddee islam ak xew-xew yi jamono bi nga xam ni moom lañ fi amal durée bu vingt deux heures jotee jëm zéro heure moom ak mbooleem animateurs yi nga xam ne ñoo nekk fii ci des desk dirigé bi ñooy ñaanal Rewmi FM ak àdduna bi yëngal këpp jàmm ak xéwal ak mucc ci barke yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal le président Mbagnick Diop yàlla may ko jàmm mucc ak xéwal ci barke yonent bi ci lépp loo xam ni moo ngi koo sumb ya nga xam ne ñoom la la yàgg a sumb diggante 2000 ba léegi ci lu jëm ci mbiri emploi ak li nga xam ne moo soxal doxalu développement wu réew nga xam ne ci la nekk boobu ba léegi kenn du ne guléet ak loolu la kon nu koy ñaanal mucc ak xéewal ndax itam yitteem mooy fu doomi aadama dugg loolu rek barke la xam ne yàlla na ko yàlla dolli xéewal ak jàmm ci barke yonent bu tedd bi sallam 2021 bii ñuy dugg nag incha allah yàlla nekk nag jamono euh, at mi ñuy wax atub explosivité at woo xam ni ci la lépp di taak jëm kanam lépp lu mu yaakaar ci réew mi ci Sénégal yaakaar ko ci euh, ndawal réew mi yaakaar ko ci yi nga xam ne moom la sumb borom bi wàcceel ko ci xéewal ak mucc ak barke ci barkeetu bu tedd bi alayhi salaam mbokk yi ku ne xam na ni emploi muy mbiri liggéey nekk na loo xam ni ci la nit di mën a amee sutura sàmm ci ngoram da wax naa leen saa su ne ni ngor fu mu amul ku dem diine sax du fa am ndax euh, ci ngay ci lañ lay nawee ci ngay xam ci nga jëm ci ngay préparé itam la nga xam ne moom ngay def euh, xam ko bu baax a baax waaye bu fekkee ne yow amuloo foo suturloo loolu day xaw a métti ndax wax naa leen bu lépp bu lépp di demit na lépp dem ba mu des ngor te ngor boo ko amul sa diine du taxaw kon ñuy ñaanal président Mbagnick ci effort yooyu ngay def ci euh, di wuutal ay doomi aadama fi ñu dugg ba gis nga ñu ngi di jëm ci euh, forum premier emploi bi nga xam ni euh, xale yi ñoo ngi déposé seen ay CV fële ca au niveau du MEDES ci madame Sané yooyu nag ay xéwal la yoo xam ni ak ay pay ñu wax xayra euh, jaza mabnun yàlla lay fay-fay woo xam ni doo xam na mu toll da wax nañu ni benn benn benn bakkan rek boo ko sauvé yow sauvé nga toute l'humanité te loolu nga xam ne moom la président bi def mooy moom mi ngi dugal ci espoiru sénégalais yi ci euh, taxawaay ci développer réew loo xam ni képp ku ci am sukkandiku ci rek euh, am loo suturloo sa bopp am loo dimbalee sa bopp téye say wajur kooku yàlla boo ko fayee rek fayalee na àdduna wërgël këpp kon nu koy ñaanal yàlla yàlla may ko fan wu gudd ak wér ci barke bu tedd bi. di ñaanal kilifa googu ci loolu muy def ci euh, taxawu. Euh, ñu gis euh, liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci Sénégal nga xam ne umpul kenn euh, di ko ñaanal rek yàlla bu may ko une excellente année deux mille vingt et un la consécration ndax xam naa ni yi ci mu yi ay yi nga xam ne moom lay mébét bu eggee incha allahu dina nekk barke ak njëriñu doomu réew mi yëpp. ndax wax nañu Sénégal dafa am lu fi am loo xam ni xëy na bu ci jot bu ci bu fekkoon ni ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi. fexee nu mu tegee ci loxoom lu woon ci mbiri emploi yi ndax politique d'emploi nekk na lu méttee méttee méttee xoolal Sénégal bu ñu dee ba ñu am lu ñuy wax association des diplômés chômeurs mu nekk lu ñaawa ñaawa ñaaw association des diplômés chômeurs ci réew mu mel Sénégal ci fii ñu toll nii xale yi pour fan la ñuy liggéeyee xoolal dem ba diplôme servir lul découragement diplôme serviratul léegi ne yaakaar diplôme ci suñu réew mi da ngay jàng ba jàng def la allergie wala nga jàng ba loolu ñuy wax yëy këyit say wayjur lépp ñu xañoon leen ko ci àdduna bi amuñu oto amuñu kër lépp loo xam ne amoon nañ ko def nañ ko ci yow ci sa njàng ngir nga mën a jàng ëllëg mën a téye sa bopp am loo jariñ réew mi amit ñoom foo leen féete nga jàng ba foofu amoo foo dugg loolu dara gënu koo metti te gis ngeen day gën a yokku ci sunu réew bés bu nekk ñuy wax njiitu réew bi le président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo koy xelal président Mbagnick Diop jox ko ay prérogative ne ko xale yaa ngoog yaa ngoog emploi yaa ngi nii yaa ngoog comme que ñoom gis nga at mu ku ci falu itam da ngay jël toujours mbiri emploi daal di ne def ko mu nekk sax loo leen di meebe ay cinq ñaata millions d'emplois par par te yooyu kenn du ko gis kon moom am na ci pexe moo ngi ci lu tolloog presque ñaar fukki at kooku du démb du bëkki démb ñu koy ñaanal yàlla mu ubbi koo xéwal ñu gën koo dégg nag ñu gën koo dégg surtout ci li nga xam ne moom lay doxalee nekk pôle développement fii ci suñu réew mi waaw loolu nekk na loo xam ni incha allahu war nañ ko ci ñaanal yàlla dali koo xéwal ak barke barke yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal nag réew mi FM di ñaanal réew mi quotidien di ñaanal techniciens yi nga xam ni loo bëgg a wax loo bëgg a feeñ feeñ te ñoom newuñu fi amaana di nga am ay gàllankoor ci ki nga xam ne moo leen jiite ba ci suuf di ñaanal Moustapha Diop DG adjoint bi nga xam ne moo moo nekk ci kër gi di topp topp tànk yi nga xam ni moom la ko bàyyam sant mu ko fa ndax seede yi nga xam ne jë jóge jëlee ko ci moom ñëw ci moom ñëw ci euh, le jeune Moustapha yal na yàlla guddal fanam mooy ko wér di ñaanal itam ñi nga xam ni ñooy journalistes yi nekk ci au niveau euh, de la rédaction ci rajo bi ak ñi nga xam ni itam ñoo ànd ak euh, Assane Samb fii ci quotidien bi nga xam ni barki dem rek doon célébrer trois millième numéro xam ngeen ni trois mille ci journal ba ñu koy def ba ñu commencé xëy na journal ba euh, bu ñu waxoon ne daanu am trois mille am na ñoo xam ne xëy na ne woon nañu sax lii ku dem sax ay gént la wala mënul nekk waaye gis ngeen noo ngi ci trois mille numéro ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala di wax ne itam euh, yàlla nañu yàlla bay nu fekkee douze millième numéro bi te loolu yëpp li ko waral mooy takku taxawaay ak fulla ak fayda ci li ngay wane ndax am na ñu juddu fi ñu juddu woon ak moom ñooñu jotuñoo gudd fan génn nañu àdduna yooyu jeex na waaye gis ngeen mbokk bi moom ñu ngi ci 3000 numéro ko xam ngeen ni loolu loolu lu lu jar a kon ñuy euh, ñaan loolu ak yeneen médium yi nga xam ne itam am na ci promo consulting ndax yemul rek xam naa ci télévision bi ak ci rajo bi ak ci journal bi xam naa ni boo demee. bànqaas yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci group bi kenn mu wax du mu toll bépp bànqaas fépp fu waay nekk dërëm boo fa mën a am wërsëg wala fa mën jëlee yóbbu ko si sa kër dimbali ci sa wéjur taxaw ci sa bopp taxaw ci sa askan yàlla dina ci dina dina dina yokk barke ki nga xam ne moo def loolu ba loolu am payam ku ko fayul it da ngay noppi rek ndax yàlla moo lay fay fay woo xam ni euh, bu la ko fayee rek ñëpp daal ci xaj ci barke yonent bu tëdd bi alayhi salaam naa ngi yemale foofu sumay kaddu leen jox dig daje deux mille vingt et un mu nekk année bi nga xam ni lu waay doon xaar na ko xaar ci année boobu lu waay doon yaakaar na ko xaar ci année boobu yàlla jëlee ñu fi mbas mi musal ñu ci lii nga xam ni ndax wax naa toujours ne mbas mi amul kenn ku fi mën a jëlee ku dul borom subhanahu wa taala wax nañ leen ni jàngoro ci boppam euh, li nga xam ni moo koy occasionné muy microbe ya bactéries yëpp ay ndawal yàlla doon ndax yàlla moo ni walillahi duudu samawaat wal ardi maam moom yooyu yëpp yëpp ci ndigal la ñuy dox vaccin bii nu yaakaar ni itam moom la ñëpp di xaar pour seet naka lay tamoo bari coow te ñoogul ak lu mën a am ndox la rek ndox mu ñu def ci ay ci ay ci ay tube muy sérum bi te ndox mi itam ku ne xam na ni moom day dund ndax wa naa minal maa'i kulli shay'in ayyin la borom bi wax ndox moom nga xam ni moom la ñuy injecté nit ñi sax jaamu yàlla la kon fa muy fajo la ko fii jëlee lépp borom bi subhaanahu wa taala moom ci boppam moo koy doxal kon nu koy ñaan ci barkeet bu tedd bi sallallahu alayhi sayyidina Muhammad alayhi salaam yàlla na ko fi jëlee ci nu mu gën a gaawee yàlla na deux mille vingt bi ñëw ñu jàngoro yi nekkoon un mauvais souvenir di dem te itam ñuy sant le personnel médical sanitaire de ce pays ku ne xam na ni Sénégal xaw ma lan la ñu ñàkk waaye du ay compétence ku gis nu ñuy fajee fii ci suñu réew mi jëm ci wàllu euh, traitement wu médecine euh, faj euh, mbas mile mën nañu ni yàlla ñu ngi dafa sutura di ñu nangoon sunu ñaan nga am yaxiin nag ci ne lépp loo xam ne yow ñaan nga ko jullit bi yàlla dina la ko defal ndax li koy mën a firndeel mooy fii nga xam ne moom lañ toll ci ci jàngoro ji ñaan ñaan bu kenn xeet ndax boo defee ni wa aataakum min kulli ma saaltumuhu lépp loo xam ne ñaan ngeen ma ko may naa leen ko rax ki doole nag jóge nii nag ci li nga xam ne moom mooy ni ñuy traité jàngoro ji dégg nga maam au niveau sanitaire ñuy wax nit ñi ci deux mille vingt et un bi yàlla na ñu yàlla musal jeexal jàngoro jile ñi nga xam ne ñoo fi nekk nii pour le moment nga xam ni ñi ngi ci traitement yi ci hôpitaux yi ak ñi nga xam ne moom la ñu naan ña nga urgence yi yàlla mu doon di jëlee ci bàkk yonent bu tedd bi alayhi salaatu di nga naan ñi ci kaso yi mbokk yi ñooñu euh, yaa am jàmm waaye ñoom amuñu jàmm yow nag na nga bàyyi xel ñooñu lay te xam ni la fa la fa dugal wala fa njaay day wax ni neex gont xam fooy fanaanee ko gën bàyyi na ñoo xam ne la fa dugal jii loolu rek la ay erreurs judiciaires ak ñoo xam ne def nañ la ñu fay def ñu daañ lañ fay téye war leen corriger nu corriger leen waaye ñu xam ne ay doomi aadama fa nekk ñu leen di ñaanal di leen ñaanal bu baax a baax di leen ñaanal borom bi ci fanweeri kaso yeeg juróom-ñaari nekk ci réew mi yàlla na 2021 bii képp koo xam ne nekkoon nga ci kaso ya yàlla nga génn ñibbi ci sa kër toog dellu ci relations sociales yi delluwaat tamit tam ci songoor ak sa honneur nga mën a jaamu yàlla ci barkante bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam di ñaanal nag étudiants yi ñu muñ ak ñi nga xam ne ñooy jàng yàlla def ci ñoom barke ci lépp loo xam ne ñoo koy jàng di ñaanal kilifa diine yi ci réew mi xalif généraux yi di ñaanal njiitu réew mi le président Macky Sall ndax itam ñaanal ko yàlla may ko jàmm ndax jàmmam mooy suñu jàmm di itam ñi nga xam ne ñooy réew yi nga xam ne ñoo ñooñu seen jàmm itam mooy suñu jàmm. di nga naan opposition bi ñoom ñëpp opposition moom moo jiitu diine yi moo jiitu société yi mooy fii nga toog baaxul man maa fa bëgg toog lan mooy lépp lu ci mën a dañ ko teg ci yoon rek xam ni itam euh, bu ñu ñëwee euh, jaayuñu réew mi xamuñu fu ñu jëm ak ñoom li ñu li ñu yaakaar ci ñoom daal mooy fii Sénégal toll rek ñu eggali ko waaw loolu mooy kàddu yi nga xam ni mooy sumay euh, kàddu de vœu yi may souhaité pour le peuple sénégalais di ko souhaité itam ñooñu moo tudd ñëpp di jox euh, mention spéciale nag au président Mbagnick Diop bi nga xam ni moom lu jiit njaag mooy njaag moom moo indi yii fii rajo bi ba ñu mën toog fii di waxtaan moo fi indi itam kuy wax ci diine indi fi wax ci social am journaliste am ay caméraman ak yeneen i xeeti démembrement yoo xam nun xëy na xamaguma ko waaye lu mën a am daal noo ngi wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin faatihi lima uxliqa wal xaatimi ma sabaqa naasi bi bil xaq wal haadihi ilaa siraatil mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh